xundoo daan nañu ñaxtu nee nañu ñi nga xam ne ñooy direction des ñoo bëgg indi ay njublan ci mbir mi waaye nag mënuñu ko nangu tey ne coalition Yewwi Askan Wi jébbale nañu ko ci département li nga xam ne mooy parité te nag lu jëm ci wàllum bi dafa am lu leer nañu loo xam ne loi bi daf ko see wax doomu Sampol Dias bi di Barthélémy Dias nee na direction des ñoom ñoo bëgg indi ay njuñ jaaca ak i tappale ci li nga xam ne mooy seen liste bi waaye nag na leen leer ne loolee du jàll Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru def ay élection ci Sénégal te Ndakaaru bokk ci loolee bu ko kenn xalaat ndax munta nekk ci réew mi te loolee Macky Sall xam na ko te su ma ko ko waxee war na ko gëma yéen a kaay gi bi nee na société bi ñoom ñoo ngi def ay médiation yéen a kaay gi di ñu xëy fekk fa professeur Ngouda Mboup xelam màcc jëm ci wàllum yoon daat nay wax ne élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ci commune bu Mbacké liste benn bokk yaakaar respecté mooy parité bi te nag dañu ko bàyyi mu jàll constitutionnel ci lu jëm ci mbiri Khalifa Sall te nag conseil constitutionnel daf ko nangu woon lan moo tax ñi nga xam ne ñooy waa direction des élections mënuñoo nangu lii nga xam ne moom la waa coalition Yewwi Askan Wi bëgg moom professeur Ngouda Mboup daan nay wax ne bu kenn ay jafe-jafe ci mi yéen a gi xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñoo ngi wootee ab mobilisation ndax nag nee nañu ñu ko bàyyi mu nekk ci ko neex mu bëgg njëkk ma ñu fekk fa Déthié Fall daat nay waata kitaabuna nee na élection du am ci réew bokk ci loole dafa leer nañ ñi yéen kaay gi xëy dañu xibaar di Vox Populi ak Le Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar niki démb ñoom tim jano nañu ak taskatu xabaar yi lu ñu yëkkul Barthélémy Dias dañu ko fàtte ñoom Aliou Ndoye ñoom Bamba Fall ñoom Seydou Gueye ñoom Sahara Iyane Thiam ak ñoom Amadou Ba ñoom Farba Ngom nee nañu ñu seeni liste ñu rejeté liste boobee ñu nekk fi bëgg koo tuumaal Macky Sall ñoom seen biir nañu xoolante ci biiri bët yéene kaay gi di direct news xëy duñu xibaar naan ñu Khalifa Sall ginnaaw investiture yi jamono ji gars yi ko yàq musiba ak mbelengaana maître Moussa Diop nee na Khalifa Sall rancunier la maanaam ku soxor la ginnaaw ba mu amee jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum caisse d'avance mairie bu Ndakaaru kaddu yi ma sa yëkkati woon na Khalifa Sall ak sàggante moo tax li yéenekaay gi dalee se ko ñu xëy fekk fa Serigne Mansour Sy Djamil moom ti mer na ba maara détaillé nee na mérito wala ñu ko yóbbu ci fukk ak juróom benneelu position bi yéenekaay gi dale ko di cee xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono ji bëri na ci ñoo xam dafa mer Moustapha Guirassy dafa mer di Sud xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar nan la ñuy def ba def seeni investiture te du am ay jafe-jafe loole ab ñoo lijjantee ana nan la ñuy jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi yéen kaay gi de la turbine xëy wax ci asu soxna mi ñàkkoon bakkanam ay bés yi nga xam ne moom la ñu génn ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ci Louga journal bi nee na sage yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne seen loxo laale na ci démb nekk dogal bi daat nay wadd ñett si ñooma tëj nañ leen lu toll ci juróom benn wéri kaso yoo xam ne duñu ko tëdd am na si ñett ñoo xam ne leen dara yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu dafa yóbbu fa mbaxana benn benn garde corps bu tudd Ibrahima Ndiaye nee na Ibrahima Ndiaye moome nag daf koo li njaaj ci lu jëm ci ay terrain ci diwaanu Maris moom Sator mbay nee na lu toll ci 36 millions la ko jox ngir mu lijjantil ko ñetti terrain fi nga xam ne mooy Maris waa jii di garde corps bi daan na mees na menteña bi ñu ko yóbboo tribunal ba moom garde corps bi wax na lu mel ni mité nee na lu toll ci ñetti poche la waxoon Sator Mbaye ci diwaanu Maris ndax leer na ko ne na kër munta jar 36 millions ci Maris ba tey ci journal bi tribunal bi nee na nañu ko tëj lu toll ci benn weeru kaso yéene kaay gi délibération Ousmane Sonko niki démb wax na lu mel ni midi préfet bu Ziguinchor nee na ko nag xàll yi ak bayaal yi ak yoon yi nga xam ne soppi naa seenu tura loole nag mënoo ci dara te dinaa ko def ndax décision la boo xam ne conseil municipal bi jëla moom maire bu Ziguinchor nee na bi nga xam ne moom lañ ko war a fay weer wu jota du ko laal lancement semaine du citoyen ni ki démb la ko xamle réew mi quotidien wax ci rapport OFNAC yi bëri na ci loo xam ne ci ay rapport ma ngi ci table procureur waaye nag ñi nga xam ne ñoom la ñu joxar bi baaraamu tuuma leen di faral di protéger moo tax mbir mi du mujj fenn lu toll si junni ak juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ci plainte ma nga ca OFNAC